alul waaw Assane Lo moom fu mu ne. nijaay bàyyi téléphone rek waaw. sànq ba tey maa ngi lay xaar ba ma paree nu mu yàggee waxoo dara jox ma dépense bi damay dem marché mi ngi naaj. yow lan laa la waxoon ci problème mu dépense bi. Hmm? yow nee naa la am nga doom ju toll noonu man mën a dem reyante dépense baa mu mbëkkante baa mu def lu ko neex pour lijjanti dépense bi yow mënoo ko confirmer dépense bi te nga man moom nga wàcc ma. ma féex ma wàcc du ma ko ko laaj yow laa koy laaj ndax yaa ma takkoon moom takku ma dëkk bi amul liggéey kii xale bu ndaw la jàng ba yëy ay kayitam amul liggéey gisoo ko muy liggéey ba di ma jox dépense yaa ma takk yaa may jox dépense jox ma dépense damaa yàkkamti damay dem dafa naaj. waaw baax na. kon kon dépense daal amul amul retraite amul retraite. amul retraite dépense mënut a am retraite. Hmm. waaw. ah foofu nga yóbbu say wax. jox ma dépense bi waxuma yooyu. di ku nar a ñàkk jom lay doon. ndax yaa koy far hmm? ponkal magum jëm mu dem lijjanti sax depanse bu nu dundee mu léegi man mi bàyyam léegi man maay dem yagar yagari indi dépense bi jox mu xont ko mu lekk loolu loolu nga ko gisee. su ko mënee rek dina la aw da koo mën a. waaw waaw amul ci dëkk bi. amul problème amul problème. demal rek indi baa baa baax na man wax ji bari ji mënuma ko. tiit diital waaw baax na defal lu la neex man wax ji rek laa tëlee. va naa def. ça va maa fi. ça yaa ngi si ñëpp ñu ngi fa. a ngi si jàmm. waaw a ngi si jàmm. ana dama laa gëj gis. maa ngi fi. ana waa kër ga. a ngi fa. xanaa njàng mee la téye. waaw njàng a téye. ci préparation examen. wax nga dëgg amare am la njàng mi moom ànd ak dara góorgóorlu la. dëgg la paa bi génn na ah, léegi la génn nii. ça va mhm. ça va. an didi. mu ngi ci biir. Didi dafa bëgg néeg xale bi Didi. waaw yaa Didi néeg bi kaay wuyu. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça ci loolu nekk. maa ngi yaa yaa ngi tànn. waaw maa kañ nga fi ñëw yow. mais lépp jàmm. waaw mais kam yegg si. yaay ñaanal ko waay dégg nga waaw may exercice yi ma koy wan rek waaw moom kañ jàppale ko rek lépp dina baax bu soobee yàlla yow moom jàng rek nga daan def koo jàppale moom dina réussir moom man kay liggéey fee ma jaaxal ah ku doon sëlmu fi leer na ma ni dig bi boo demee sax sëlmu fi dafay saw amatuma booyam sa booy xam nga si ndax ah amoo. non non mooy wuy ma. cinq minutes la. ah cinq minutes pour. doo def eu vou ñëwaguma sax nga bëgg a commencé. eh eh ah def ndànk ak def bu baax waa taxaw leen waa eh taxaw leen caga yi ngeen doon xaaral may na ma tuuti rek. voilà qui verra verra teel eh bu kenn bougé stop. may na ma ma wiiri rek teel leen. bu kenn ah notre corps ma pile ma ñëw. voilà merci beaucoup. waaw loolu góor. Didi yaa ma bett ay Didi doo responsable nga war a uti jox ma uti woo jox ma xanaa nga nekk fi di faj xale yi rek di faj xale yi rek aha kay fajkat dëgg nga mooy yow yaay sauvage yaay sabre indien yaay yow yaay mauvais tu es dégueulasse maintenant mais tey la suñuy diggante di fi yàmm point barre man du nekk kuy am sobe lu ma lijjanti ci kër ga mu tël sa yaa ngi nii sonal ma wit wit wit wit ci dépense bi te yow yaa ma waroon a relever ci dépense non ah léegi defootoo loolu léegi rénovation bi yépp yëfi saay saak ak lu nga sa malaaka ci kër gi yépp ndax lu ma ci kër gi yépp rey nga leen fu la neex ngay taxaw ubbi saw mu ngi nii fii yaa fi saw xëmbale fi dégg yow daal lu bon lu ne rek da nga koy créer di ko def si kër yow booy foo dëkk noo tudd ak foo dëkk. fii laa dëkk ban école ngay jàngi. lycée. lycée Malick Sy. lycée ban bii. lycée kër gi. lycée lal bi yow sa lycée demul lycée moom jeex na point barre yow dootoo dem lycée xam nga fii ngeen koy lycée sama kër di def seeni yëfi saay-saay yëfi cag. ah kay notre corps va te faire foutre nga ni loo notre corps. ah notre corps comprend la tête le tronc parce que je l'ai vu Yankee Bobby ci Demi, Yankee yaa notre corps comprend la tête le tronc les quatre membres intérieur supérieur Mon nga ko doon njàngal ba mu mokk futti ko débésébésé ko hein? situation caxat caxatee xale bi lijjanti ko di nga maam ba loolu nooy nekk nga ne koy point yow da nga doon jàng juróom ngay am nga bac bi sa ki tey ah beaucoup ah kon man jur doom joo xam ni professeur day joxe bac ci kër gi chez moi fii ngay joxe bac xale bu ci tëre di jaay ngule nga ñëw notre corps kon yow notre corps nga jàng merci beaucoup jërëjëf mais yow kaay yow soo di champ ñëwal merci soutien bi jël ko yaa waaw dangaa si dindi woon sa soutien. waaw jàng day mokk ma peux comprendre la tête les soutiens les filles effectivement merci beaucoup. tu es bien joué ñëwal. très bien ah oui. voilà Ah, ah, ah, ah, jërëjëf. yo, yo, yo, non non non non non non non non non non Yo, nga ne ñaata ngam. 19 ans. di. 19 ans. 19 ans waaw monsieur Didi Dal? moo la doon defal cours mm. <laughs> monsieur Didi ah d' accord di kon yow Didi monsieur nga. ay cours ko doon. waaw waaw waaw waaw la l'action de notre corps xale bu toll ni yow mm. war a jam jàngi jàngi woo hmm? ñëw ci sama doom. Hmm? mu lay defal ay cours pédagogique yi voilà lii yéen lii moo tax yéen mbuus yi nekk ci kii bi ci force bi yéen ko fa def. ah di muy wax naa ko mbuus yi ba taay yéen kay yeneen yéenay fas mbuus yi rek kii génnal nii génnal génn ci biti. génnal ana kay ma xool mi ngi fii ubbi ubbi ah. ay exercice ay bac <laughs> waaw loolu na yow moo demee nga ni sa yaay am naa bac. Oh. treize ay douze ans ngay am ak yow daal foog coogoon. di jàngal di jàngal. boo demee nga ni ko. waaw sama kay la. waaw waaw léegi boo demee nga ni sa maître. man maa li jaase sa bag. ci sama kër désormais am teel ni ne ko Ndiaye Baraada nee na. am naa bag bul jàngeeti de teel. <laughs> waa teel acca demal lii mooy soutien bi. Ah, bi mat na de <laughs> boo demee na nga sangu seen de. d' accord demal waaw ay demal nga d' accord di di yow kaay.

foofu c'est sa kër yow mais sama kër man doo fi doon jàngalekat mu kon yow si yaa jeexal. loo bëgg. azunu rek di azunu rek. kon yow foos yi mbuus yi si nekkoon ci biir foos yi saa yu ñu koy ŋàcc rek ñu naan fu mbuus yi jógee kon yow yaa doon indi mbuus si foofu. amul lu man def bul wax loolu. saa yoo jàngalee kat rek boo jàngalee ba pare rek. Hmm, def euh, la quatre points cardinaux l'est l'ouest nord bi ak les quatre membres supérieurs futti xale yi jox leen seen bac. yow yaa joxe bac yi. Hmm? di yow yaay joxe bac di di sàmm yow yaay joxe bac yi yow. Ah, papa dama ko doon dimbali rek. xam nga yow dootuñu dëkk ci kër gi. Hmm? lépp ci pédagogie bi rek par l'action. voilà pédagogie par l'action moo tax maître yi di. former xale yu jigéen par l'action dans la l'école avec la li <laughs> waaw xam nga di sàkku xale yu jigéen ñi ah bien sûr waaw non la demee mais yow maa ngi dóor ci kër gi yow. papa bul wax loolu. c'est fini fan laa jëm. joxal la bàyyi papa bàyyi la ñu joxal ba ma gisati la fi rek saay saay kuti yi xaj. un hein? deux. <laughs> man nak tay la jommi jommeet jommeet jommeet ni muus mu naan diwlin lii kenn gis je n'ai jamais vu l'action labiablement dans la maison ah oui Samba nekk ci kër gi de saan waaw waaw xale yi dañoo të dañoo të ay 19 ans di xam l'amour di xam la porte sexuelle buñ waré jàngi dem defi rapport sexuel bu doyoon. ñu door leen ay bat giir len ay bat TAB mu ci jógee wa yow mom caga bi mom man na dem fune mom moom dugal ak fu ko neex man na fa dem ndax jigéen ji ma yaa ko dab mee na ko bat bi <laughs> ay caga lan regarde ma ça nek bangi ngi ënn ënn ënn ënn hmm keur gi jommi jomet man naka jek ma ni kàppu di de koy sanni ci biir duusi ah, wéyam may wax mu nan ma la wa waa kat ak éducateur le ak éducateur le enseignant hmm,